leen ziyaare yéen ñi saxoo di wétali ko 7TV télé bi suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ñu ngi leen di nuyu bu baax baax te di leen ziyaare waat baax di leen baalu ak ci 18 safar bi lee 2024 7TV naroon àndandoo ak ren nag macha allah ni ñu koy defee saa su ne la leen di gunge waaye dama choisir ren nag bi wax dëgg yàlla euh, màggal gi dama koy jagleel soxna yi soxna yi laa koy jagleel di nuyu bu baax a baax équipe bi nga xam ne yëpp ñoom la ñu àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen bu baax di nuyu waa kër gi ko defee tey ki euh, euh, li nga xam ne rek moo di màggal gi ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne jëm na ci màggal gi waaye li nga xam ne jëm na ci soxna yi ak seen taxawaay ci biir kër ak yam ne moo di Serigne Touba seen taxawaay ci àdduna waaye seen taxawaay ci li nga xam ne mooy fi réew mi dalal tey fas waxtaan moo di soxna ma Jaxate Mbàkke balay sa maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la sant ci eh, li nga ñu nangoo dalal fii ci sa kër ñu sax fa seeni siq waxtaan ñoo ngi lay sant bu baax Fatima sister Fatima Maria di la di kontaan ci recevoir la fii ci Daaru Karim ci bis bu sell bi la 17 safar mm-hmm. di sant sa équipe yëpp ak sa télé. 7 mm-hmm. yi nga xam ne suñu télé la également. sa kër <laughs> waaw sama kër ñu ngi lay sant bu baax di fàttali ne yow jiite li nga ne moo di réseau boobu eh, nga ne dafa dajale ay jigéen dajale ay soxna yoo xam ne macha allah ñu ñu dippee ko sargal. Mm-hmm. nga jiite itam beneen mouvement boo xam ne dinañu ci ñëw mouvement Afat dinañu ci ñëw léegi ci kanam incha allah waaye fi ñuy tàmbalee wax mm-hmm. waxtaan wi eh, soxna si mooy li ma tàmbalee léegi rek. taxawaayu soxna yi ci biir kër Serigne Touba mu di sa maam di fekk si la tey ci weeru sell bi waaye ci bési sell bi jërëjëf soxna Maria ñu commencé ci tur bu sedd boobu tur bu sedd boobu bu sell bi soxna Maria nga xam ne soxna jaariyatu la soxna Maria ma bu sell tuddoon jaamu yàlla ak jege boroomam moo tax ñu koy wax jaar uh, jaariyatu yaa jege ñaale boroomam uh, bala ñoo ñëw nag def développement ci jigéen ñi. dañuy bàyyi rek ñu sant euh, sëriñ bu mag bi mm-hmm. ci sëriñ bu réy bi mu ñu indaaleel ci yoonu géej gi ñaanal xalifa bi suñu mag boobu mm-hmm. suñ Muntaxa Mbàkke mm-hmm. mu yàgg fi te liggéey bu sell bi muy def nii yàlla gën ko ko yombalal may ñu xool ak ndigalu topp ci ginnaawam jëfe ay ndigalam di sant aussi xalifa Daaru Karim Maam Mor Anta Sali Mbàkke suñuy waajur di sant xalifa kër sëñ Modou Fatick rek sëñ Fàllu Mbàkke di beral nag sant particulièrement Ahmadou Dam mi ñu bokkal lépp <laughs> ñu bokk ak moom lépp mu jël léppam aussi di suñu kilifa ba pare jël lépp teg ci suñu loxo teral ñu ba ñu tedd gis nga ni ñu ko gisee nii ñu di ko ñaanal di sàkku ci murit yëpp ak taalibe yëpp ñu dooleel ñu ko ñaan mm-hmm. yàlla yokk fanam dool wéram dolli wërsëgam ak njabootam. ci barke sëñ Massamba Mbacke suñu bunt ci yoon wi. waaw léegi rek ci li nga xam ne moo di balal sa bu ñu leen fekkee ngeen toog. Hmm. Eh, Mbacke bëgg xam. Eh, hmm. dëgg-dëgg li nga wax léegi ci soxna Jaaratu la eh, soxna yi seen taxawaay ci biir kër Serigne Touba. waaw soxna yi Maria taxawaay bu ama am solo lañu lañu mas a taxawee ci yoon wi. Hmm. taxawaay bu ama am solo. loolu mi soxna Jaara mi ñëpp xam. soxna asawaal moo ko jiitu di di ma di waajuru soxna jaara mm-hmm. li mu dund ak sëñ bu mag bi soxna jaara dund ko moom soxna jaara 33 ans la am waaye soxna asawaal moom lañ wax ne am na cent vingt ans wala lu ko ëpp mm-hmm. naa fi la juróom-ñaar fukki at ñëpp xamoon ko mu yor daara di jigéen ju am taxawaay mm-hmm. bu loolu jàllee ba jamono yooyu jàll aussi nga ñëw ci biir kër gu mag gi waa barzaq yi waa kër sëñ bu mag yi ni leen di wax ku mel ni soxna amintaloo mi nga xam ne moom kenn nattable woon pakk bi mu am pacte bi mu amoon ak borom borom waaw ak borom këram di sëñ bu mag bi euh, nga jàll jooju jamono tuuti aussi ku mel ni sama turandoo soxna Mariama Jaxate nga xam ne moo ñu feeñalal sëñ Saaliw ak sëñ Abdou nga jëmaat ba ci jeneen jamono ju gën a contemporain ak ñun nga jël ay bàjjan moomi mm-hmm. nga xam ne moom moo gënoon a nekk trans moo nekk première transformatrice céréale ci yoon bi ba tey sax am na ay doomam ñuy yëngu ci wàllu googu jël ku mel ni soxna may mi nga xam ne moo fi mujj ñëpp xam ko boo ko tuddee rek tudd nga suñu bàjjan yëpp ay soxna sooda soxna naata ñoom ñooñu ñooñu ñëpp dañoo nekkoon ay acteur de développement seen kër nekk ay daara ñuy yar koo ci gis centre de formation la këram nekkoon ñu daan formé ñi ñuy wax ay saa bàjjan jàngal leen tey Sénégal gépp d'accord nañ ci ne ñuy wax saa bàjjan ñoo dàq liggéey ci liggéey seen loxo lu jëm ci togg lu jëm ci liggéeyu biir kër bokk nañ ci jigéen ñi gën a mokk gën a neex yor te loolu suñu bàjjen yooyu ñoo loolu boobu ñoo ko doon mhm. ñoo ko doon assuré mhm. ñun auparavant daaw ñu yaroo suñu kër ay waajur mbàkke mbàkke bu jigéen raar na mu yaroo ci ndeyam ak baayam dañ koy jox bàjjanam mhm. mu dàggi ko jàngal ko jàngal ko liggéey jàngal ko lépp lu jigéen war a taxawee ci biir këram dem nañ nag ba jëmmi jamono mu xaw a changé am na fi période boo xam ne daanaka euh, dañuy fàtte sax li jigéen ñi di joué ci yoon wi ma gis naa fi mu nekk nii ñi gën a ndaw bokk ci seex si wala ñu bokk ci sëti ku tedd ki ñu ngi commencé waat di taxawaay di taxawaat taxawaay bu am am solo di góorgóorluwaat bu baax ci jàng mi ndax xam nga on peut rien faire sans l'éducation comme li dirigeant wu Nations Unies ba waxoon Kofi Annan nee na si vous sujet l'éducation chère essayez l'ignorance voilà l'ignorance donc fi mu nekk gis nañ ne daal am na amélioration ci niveau xale yi non seulement ci seen njàng alxuraan ak diine mhm. mais ci seen njàng wàllu français aussi mhm. waaw léegi on commence à avoir des docteurs il y a pas dix jours maa ngi doon assister sama benn doom buy def thèse am université docteur macha allah mhm. soxna Fatou Khary Yaqin te am na yeneen ak yeneen cousine am ak cousin am yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ci lu mm. demee noonu. Euh, euh, noonu laa koy woowee ndax ñu bëri la ñu ah, moo gën a siiw moo gën a siiw soxna Ndiakhate da wax léegi ci sa biir wax. Mhm. Euh, lu jëm ci transformation céréale locale da nga wax ba tudd. Mhm. bàjjen moom waaw waaw. tey ñu gis ne loolu jamono yooyu la woon yàggoon na mais tey dafa mel ni dafay doog a nekk actualité. dafa ressurgiraat. waaw dafa ressurgiraat bu baax a baax fi mu ne boo dinaa lay foire sax. Mhm. en Europe et gis nañ ne ay ñu jóge ci vanago soxna moom yooyu soxna musli soxna may ñooy jël coupe ba France. ba man mii am na sama benn entreprise boo xam ne foofu laa ko acté day exporter céréales et tout ce qui est made vers la communauté européenne te loolu dama ci am autorisation bu ko fa mën a dugal légalement. Mhm. parce que man euh, ancienne sénégalaise de la diaspora la. si fee la diaspora voilà taxawaayu da ciy am solo <laughs> taxawaayu sër wax lu jëm ci diaspora bi dinañu ci ñëw léegi ci kanam euh, céréales locales yi ngay wax noonu mm. loolu pour soxna yi def ko mm-hmm. dafay laaj yaay booy jàng dafay laaj formation mm-hmm. dafay laaj ñu encadré waat leen bu baax a baax baax dafay laaj formation et information mm-hmm. parce dañoo niroo mais bokkuñu tu peux la formation et non la information te boo amut information doo xam lan nga war a wuti lan nga mën a def pour ce produit légal ce mhm. produit obéir aux normes mhm. pour nga mën a exporter mhm. parce que njaay mi aussi dafa war a ak entreprise yi dañoo war a màgg jigéen ñi dañoo soxla ñu former dëgg dëgg dëgg dëgg euh, presque la moitié de la population sénégalaise euh, est constituée de femmes te femmes yooyu mën ñu leen a en rade dañu bëgg bu baax a baax ñu gën a feeñ ci l' espace public et professionnel d'une manière très professionnelle. bañ génn le informel. y a longtemps maa ngi def benn formation ak samay ay jigéen yu may yore euh, formateurs yi di ñu xamal ne 82 pour cent des entreprises sénégalaises sont dans l'informel. tout à fait pour cent. nga xam ne ñooñu non seulement duñu fay tax parce que kii ñu mais duñu bénéficier aussi ci fonds yi ñu mettre en place pour ñoom parce que seulement euh, par manque d'information. Mm-hmm. et ça c'est très c'est un frein pour le développement loolu frein la pour développement donc jigéen ñi aussi dañoo soxla ñu bos seen leadership xamal leen ne mën nañoo boole allier kër yi ménage ak liggéey bi professionnalisme bi te du yàq dara ci seen diine du yàq dara ci seen aada voilà jàngalaat diine xam nga lu tax ma bëgg ñu dellu siwaat ci parce que da nga wax sànq ba ne gis nga ne euh, surtout Serigne Touba yi ñu ngi dellu siwaat ca la nga xam ne moo du njàngum alxuraan njàng diine bi ak li nga xam ne mooy jàng sax li nga xam ne moo di wàllum àdduna ñu toog ci ay jamono yàggul daaw wala daaw jéeg mhm. ba léegi dañu koy wax dañuy jékki-jékki am mhm. yoo xam ne dañu koy nga baal ma ah, dañu koy dañu koy soxna yi nga xam ne ñoom ñoo sant Mbàkke ñu naan ñoom ñoo màggal gi li ñuy def ak yooyu tey dañuy dañuy def parenthèse foofu rek parce que yow yaa yow yaa wax ba wax ne ah, dellu siwaat ngeen ci njàng bi waaw parce que da ciy baax itam ñu ñu ñu delloo siwaat leen ci li nga xam ne xëy na peut-être <laughs> mooy mooy mooy mooy màggal gi waa dëgg la nag xam nga nag ba tey di ngay des ci la ma waxoon la formation et l'information mm-hmm. l'éducation mm-hmm. l'enracinement et l'ouverture maanaam nit dafa war a xam boppam nag dëgg-dëgg xam boppam mm-hmm. ba xàmmee nag lan mooy l'essentiel boo xamul lan mooy sens màggal gi wax dëgg yàlla màggal gi aussi bernde la sànce yeeg yëpp dëgg la mais nag wax dëgg yëfu di événement diine la munta nekk mënuñu ko allier rek ak takkum périg ak montre ay dressage ak yooyu du loolu ku ñëw fii par exemple ku jógee ci àll ba ñëw fii tey euh, ñu toog war ngaa am loo jàng ci femmes yi nga xam ne ñoom nga fi fekk soxna yi nga fi fekk mhm. ñuy ay doom ak sëti sëriñ ak soxnay sëriñ mhm. ndax am na loo xam ne tamit il faut pas faire le mélange de genre on peut pas mélanger les torchons et les serviettes munoo jógee ci biti ñëw tuuba dikk la nga bàyyi ci biti nga fekk Touba lu ni mel loolu nag day xaw a ternir image tuuba mhm. mën nañoo sol ci yére yi defaru ndaxte wala xadd karab naa bànne aadama teranga yépp yàlla suñu borom doomu aadama la ko jagleel waaye nag ñuy éviter benn euh, flagrance bi waaw benn théâtralisation wu màggal gi <laughs> folklorisation wu màggal gi yooyu nag wax dëgg yàlla mën naa ñàkk mm-hmm. waaw may invité rek sama doom yi ndax xam naa ne mag ñi sax moom du nekk ci loolu mm-hmm. mais suñu doom yi ak suñu jarbaat yu jigéen bi ñu gën xam daal xam fan la ñu jóge ak fan la ñu jëm. Mm-hmm. waa waaw waaw ndaxte ci ñoom la ñuy war a roy mm-hmm. waaw parce que boo defut lu tax ñu war a roy ci yow kenn du la roy ak ko la mën a jur waaw dañuy maaseeg yow te du affaire u rëy rëy loola dara waaye daal wax dëgg yàlla bu ñëpp yemee am ku gedd cëram ñëpp yemee jëf am ko génn ci waaw euh, mu nekk loo xam ne dañu leen koy fàttaliwaat bu ñu dellu si waatee un mm-hmm. ci li nga xam ne moo di euh, soxna yi waaw sànq wax nga ba ne ba tudd diaspora bi mm. ñu gis ne diaspora bi itam mm-hmm. suñuy doom a ngi wër mm-hmm. pour dem di daw di jëm foofu dëgg la euh, Mbacké tey bu doon message boo xam ne en tant que yaay dama koy lancer ak fi jamono ci toll lan lay doon waaw tukki de moom dafa ànd ak àdduna te ba àdduna tukki tukki day am waaye dañuy toll jamono joo xam nekk sa dëkk day gën nekk ci dëkku jàmbur te euh, tukki bi tam vraiment fi mu ne nekkatul nag dëgg dëgg dëgg à la mode ñibbi ñibbi si ñëw installé si jéem a def li ñuy def ci àll bi daal bu ñu ko dajoon fii dinañ am lu raw li am ci àll bi te dina ànd ak nekk ci seen biir famille ndax immigration nag ci boppam dafa metti rawatina nag bañ naan clandestin boobu moom day musiba naaru lay désastre la te dafa gën a métti ci jigéen ndax jigéen muy socle de la société bu immigration bi bañee ba baree njaboot gi wàññeeku valeur yi wàññeeku parce que ba tey ci biir immigration boobu ba tey formation ak information day dellusi les gens non formés bu ñu demee foofu ils ont d'énormes difficultés duñu non seulement ñu am métier mais du ñu am ñu egg ci niveau de standard niveau bi ñoo ñu nekk pour ñu man laa employé duñ ci nekk donc danga nga perdre sa temps dem ñu fu jàngiwaat wala nga def métier yoo xam ne marchand ambulant sax ailleurs la ëppee du ma la ne Europe wala États-Unis mais ailleurs sénégale yi dañuy ambulant te bu ñu amoon yenn formation yi bu ñu demee dinañ def métier yu gën a diin waaw te Sénégalais yi dañu nekk ay jàmbaar nag boo leen fekkee ci àll bi da leen di naw ay jàmbaar lañ dëgg-dëgg ci liggéey. immigration njëkk dañu doon wax góor ñi la koy dem mais ba ñuy. mineur yu jigéen ñi sax. waaw jëlaal ñenn ñi mm-hmm. doom. mais loolu xam nga dafa am période bu sombre ci histoire Sénégal boo xam ne moom lañ génn nii. Mm-hmm. yàlla buñ ca dellu. Mm-hmm. moo ko moo ko yokkoon daal ci ñàkk jàmm gi xawoon na xew ci dëkk bi ñàkk liggéey corruption bu bari bi. loolu aussi baaxul. corruption àndul ak développement donc loolu taxoon na nag nit nit bu amul dara rek day daw wuti waaw waaw loolu moo ko yokkoon mais yaakaar nañ ne daal ak l'avènement de ce nouveau régime ñu ngi am yaakaar bu baax a baax ñu gën a améliorer condition de vie yi gën a jox considération jigéen ni gën leen a dimbale gën leen a jàppale ba ñu gën a mën a def entrepreneuriat féminin bu bu tax ñu am luñ jàpp daal. Mm-hmm. mën a dimbali njaboot gi borom kër yi. Touba ci màggal gi. waxee fàttali ñu ngi ci màggal 2024 li ñuy wax. Mm-hmm. dafa bëri facette yoo xam ne ñoo ne ci màggal gi dañuy bëgg soxna soxna yoo xam ne toog waxtaan ak ñoom ñoo xam ne. Mm-hmm. mën nañu jàngal yeneen soxna yi war nañ leen mën a wax ne fii ngeen war a jaar. dëgg la mën ngaa ne ci kër gi di gérer kër gi mais à côté mën nga def leneen loo xam ne day indi développement. dëgg la maintenant dafa am soxna si lu xew ci dëkk bi mooy que ne. Mhm. dañu commencé di nax soxna yi. Mhm. ci ci affaire groupement yi. ci affaire association yi. Eh yow yaa ngi reetaan de waaye dafa mel ni euh, li may wax dafa xaw a nekk réalité. dëgg la parce que dañu leen di nax dañu leen di dajaloo leen par mhm. exemple ñu dajaloo. ñu nax leen ci ay financement wala ci bëri na ci luñ leen di nax parce que politique bi mu defe naa ne romb nañ léegi fu ñuy naxee jigéen ñi ñuy tàccoo ko yooyu defe naa romb nañ loolu. waaw lool nga wax de dëgg la ndax man yaa une semaine. Mhm. fa la ñu nekk ci coalition ba présidente coalition bu mooy président DER. Mhm. woo na ma fi ne ma damay dañuy financé ji ay jigéen Touba. Mhm. Euh, wutal quelques jigéen. ma proposé ko nombre mu ne ma ëpp na. fixe wax ma beneen nom mais bu may woote ci biir sama mouvement ak biir groupement de femmes yi mm. y avait des femmes qui étaient na ñoom dañuy jël seen carte d'identité yi di ko doyee leneen man laa ñun de jegewuñu élection fi mu nekk mm. d'ailleurs sax confectionné nañ liste ba jox ko ko màggal gi rek yëg si na te jotaguñ ci financement boobu ñu ngi yaakaar ne dinañ ci jot ci jàmm mm-hmm. mais buñ ci jotul moom dana nekk dañ ma danañ ma classé man fañ daan classé jigéen ñooñu leen doon nax mm-hmm. te yàlla xam na ne man nekkuma ci yooyu ndax man ku ba xam ci liggéey nga ma xam je n'aime pas trop wax ci sama bopp mm-hmm. mais man ba ma jógee dama yaakaar di di dundee sama ñaq daal loolu mooy li ma mooy sama principe man mhm. Mhm. jigéen ñi ma jege yëpp dama leen naan man ngeen ko vous pouvez y aller vous pouvez le faire mhm. liggéey leen nekk leen ñu diñ euh, bu leen dépendre trop trop trop sax ci banque yi ndax banque dañuy paupériser jigéen ñi taux d'intérêt yi élevé na jigéen ñi dox seen digg ak euh, institution de financement yooyu xaw nañu ñàkk dëggu donc dama leen di wax ñu ñu dem plutôt vers natt yi tontine yeeg yooyu moo gën banque yi. Mm-hmm. à vrai dire. comme dinañ mën a am. waaw dinañ mën a am dinañ mën a am ñoom dinañ def autofinancement xam nga autofinancement moo gën financement bancaire. Mm-hmm. donc ñoom ñuy dem vers le économie solidaire. Mm-hmm. fi mu nekk man maa ngi benn économie solidaire boo xam ne 8 millions la jigéen di am par weer xam nga loolu bu liggéeykat dëgg boo ko joxee 8 millions mu dem. mais néew boobu waaw. liggéeykat dëgg waaw dëgg voilà. <laughs> donc yooyu laa leen gën a conseillé mais teewul. ñu ci roode dëgg dëgg dëgg ci liggéey entreprise yu mel ni DER ak yooyu nga xam ne ay agence lañ war nañoo gën a yokk seen loxo bien que ñu ngi liggéey gën a dimbali jigéen ñi gën leen a yombal financement yi jigéen ñi duñ këpp kees duñu leb te duñu fay dinañ yàq nag ci xew yi. waaye bu ñu lebee dinañ fay. <laughs> waaye faykat non non duñ këpp kees waaw joxee ñu duñu këpp kees ah. bu ñu lebee dinañ fay boo leen joxee lu ñu war a gérer ñu gérer ko normalement comment se porte le le modèle de développement à Touba maanaam duñ ko mënee wax mhm. euh, bu ñu bu ñu jëlee modèle de développement moom it mhm. tey euh, bu ñu jëlee jigéen ñi ni ñuy liggéeyee ak yooyu mhm. fii ci Touba euh, naka naka fan la toll naka la mel mu ngi gën a développé mu ngi gën a waaw mi ngi yokk mi ngi yokk parce que Touba cheville ouvrière bi jigéen ñi ñoo ko yore ñooy xooli gerte ñooy nekk ca marché di jaay 5 heures du matin fees nañ dell marché mhm. lii vont ak euh, loxoy kese revenir ak dépense wala revenir ak ndugg ñu ngi ci secteur yi yëpp pratiquement te nag fii nag plus de cinq pour cent des femmes ne sont pas lettrées waaw mais nangoo liggéey nag def nañ ko mhm. xam naa ne daal bu bu bu ndimbal li gënee ñu gën leen a orienté développement moom jigéen dina dina ci participer bu baax a baax a baax a baax mhm. fii ci waaw le modèle mouride ça mhm. porte très bien mhm. le modèle mouride mooy yaa même sax benn dirigeant bu koy wax ne nañ jël modèle ndax te mooy ñoo xam ne nii ils sont sur le consommé local li ñuy defaral si ingénierie bi ñu am ci fii nii ndax mag ñi àndoon ak sëñ bi lépp ñoo ko doon defal seen bopp lépp lépp ils étaient ils étaient des très ingénieux rusé ci ci ci liggéey. Hmm. donc modèle boobu ba léegi mi ngi fi mais xam nga je rappelle que Touba amul ay tool. amul ay tool déedéet amul ay usine bariwut artisanat à part jigéen ñi ñaw ak di transformer ak mhm. donc lan moo fi sës di commerce donc euh, Touba et environnement yëpp ci commerce la ñuy yëngatu que ça soit nag commerce des produits locaux commerce des tissus di tissu ak commerce de cosmétique ainsi de suite import export moo fi am waaw mhm. moo fi am mais jàmbaar lañ ci nag am na nag ay embryon de d'industrialisation mhm. mais c'est pas encore ça des na daal ah des bu baax a baax waaw des na bu baax le modèle de développement mu nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy demee mhm. dafa mel ni soxna yi tam ñoo soxna yi ci gën a ñoo ci jàmbaar lañ jàmbaar sax soxna yi jàmbaar lañ man mii sama waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla dolli leer soxna bu sa njaay mm-hmm. doon na def presque quatre ci yu bokkul mm-hmm. da daan cuub di ràbbalu ay sër mm-hmm. am petit commerce di def élevage nga xam ne ñoom daawuñu am comptabilité ak yooyu mais doo doon nañ ci génn doon nañ ci génn bu baax a baax donc fii jigéen jigéen seen Touba moom dañuy liggéey à l'image de jigéenu Sénégal jigéenu Touba moom dañuy liggéey ñu am jom lañ waaw mais nag ñu ñàkk formation lañ ñu ñàkk jot ci foncier ak le ak financement lañ mhm. waaw ñoom ils y vont rek ils y vont waaw wax nga wax nga moobu moobu doy waar mhm. foncier mhm. Euh, de plus en plus ñu ngi gën a dégg ñuy kaas ci jigéen ñi mënuñoo am lu accès à la terre c'est vrai mënu euh, seen 4F euh, mooy suñu problème foncier financement formation loolu mooy suñ problème mooy problème mu jigéen ñëpp que ça soit nag la femme rurale la wala la femme urbaine l' accès au foncier au financement et aux problème la pour femmes mm-hmm. yi mais mais mais mais loolu yëpp bu fekkee amoo accès ci loolu yëpp. nan ngay développé ci secteur informel. ngay moo tax le président Diomaye a instruit certaines institutions euh, de formation. Mm-hmm. de forme au moins 500 femmes yoo xam ne daf leen di formaliser pour créer des unités économiques. Mm-hmm. dafay fekk ñu am ñuy liggéey noonu mu fexe bañ am registre de commerce am NINEA ah, tàmbale xam ne dañoo war di tax taxe que ça soit la contribution unique et globale bi 100000 wala 50000 wala beneen mode de taxe boo xam ne dañ ko war xam nga fayum taxe aussi mooy mooy mooy développé dëkk. Mhm. donc cinq 500 femmes yooyu wala unité groupement de femmes bu ñu leen formaliser ñoom dinañ mën a former ñeneen. mu mën a former ñeneen mu nekk une chaîne de valeur une chaîne de valeur. Mhm. waaw mu mën a avancer bu ko defee taux bi nga xam ne moo nekk sur le secteur informel mu mën a wàññeeku. ba pare ñu mën a accéder ci fonds yi ñu mettre en place même Union européenne daf fi indi fonds ba delloo ko parce que du ñu remplir conditions yi pour jël ko xam nga loolu doy na waar. en ensuite ci ñi mais surtout fi réew mi toll fi mm-hmm. mm-hmm. nga xam ne moom la sama am jàngale mm-hmm. mu di waaw waaw waaw li ma leen di conseil rek mooy ñu gën a gëm seen bopp te gën a am patience ndax yàkkamte moom baaxul loolu sama maam digle na ko mais ci eh, borom bi lañ ko borom bi moo ko njëkk a wax inna la maa sabirin yàlla muñkat yi la àndal muñ asabru muñ googu dañ ko war di def mooy résilience nu ngoo liggéey gëm sa bopp nu ngoo wut xam-xam d'abord ba pare nag nu ngoo am patience ba egg fi nga bëgg di leen conseiller ñu gën a góorgóorlu ci loolu ba pare tam di leen wax ne comme ay jeunes jël nañ dëkk bi régime bu jeune lañ am nii te xam naa ne ils sont dans de bons dispositifs pour dimbali jigéen ñi ak jeunesse bi ñu gën a wàññi immigration clandestine bi ak risques yenn yiy jël te gën a gëm gëm seen bopp gën a nangoo jubal fay taxe liggéey normalement jub jubal jubal ci daal <laughs> en quelque sorte waaw voilà soxna soxna yi man xanaa di leen féliciter di leen encourager te leen di invité aussi ci ci nangoo dem def ay formation ta def ay groupé wu ndax groupement mooy do pas groupement yi fi xewut ni mais ànd di liggéey même boo demee daal les pays développé entreprise yu mag yëpp ay association lay doon du doon lu kenn moom il faut ñu xool ñi xa ñuy def par groupe ñi mën a génne financement génne ko ñi am xam-xam liggéey ñi am doole liggéey mu nekk. waaw exactement voilà exactement voilà voilà te këyit di leen di leen liyee ndax firme yu mag yi sax waaw di leen liyee waaw par exemple jeunes yi di nekk ci mbedd mi di jaay. boo jëlee juróom benn fukki jeune ku nekk teg cinquante mille ils ont un million bu ñu ko yóbboo ci institut finance de financement léegi ñu am 10 millions daal di ubbi benn business ñi mën a toog di publicité ñii di jaay ñii di wëri clients yi ñii di fabriquer entreprise judd na entreprise judd na noonu rek la ndànk ndànk ndànk ndànk jërëjëf waaw merci beaucoup Mariama Diakhaté Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm ci li ñu dalal fii ñu fekk si la ci Daaru Karim mm-hmm. ci li nga xam ne moo di weeru safar gi nga xam ne moo di mbégte bi mm-hmm. su duggee ñëpp bég ñu fekk si la mm-hmm. fii ci Daaru Karim ci sa màggalub maam ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di la gërëm di la sant ñu bàyyi la nga tàggatoo téléspectateur maa ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla yàlla bu mu doon suñ mujj gi màggal di sant sëñ daam comme ni ma ko waxee sànq di sant sam sama waa mouvement afaat jëriñ askan bi di ñaanal président de la république président Diomaye Faye yàlla yombalal ko mission ak le premier ministre Ousmane Sonko di leen sant bu baax ci ni def ci màggal gi ndax ñun Touba rek lañ am ku jé ku teg Touba fenn ñu teg la fenn ku won ginnaaw waa Touba ñu won la ginnaaw donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen sant yéen yow tam ak sa équipe <laughs> jërëjëf jërëjëf mu Euh, incha allah dama koy daal di jagleel soxna yi ma njëkkee ci moom nag di ko ci sant bu baax a baax ci disponibilité bi mm-hmm. nga xam ne noonu la ñu waxtaanee moom moo di nga xam ne moo di soxna Marème Diakhaté Mbacké mm-hmm. ah, jiite mouvement boobu di afat jëriñ askan wi waaye jiite li nga xam ne rek moo di réseau de femmes ñu sargal mm-hmm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di remercier l'équipe ah, ñi nga xam ne rek moo di la production di leen wax ne rek ñu leen ko fas yéene àndandoo yéen incha di leen ñaanal rek euh, li nga xam ne moo di saa su ne ni ñu leen koy waxee la télé qui nous ressemble et nous rassemble scotché wu leen ci 7TV yeneen a ngi ñëw ñu fa fas yéene àndandoo ak yéen bon magal à tous